ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet daara la rëcc ci réew mi. ñun suñu dëkk mënta avancé parce que taskatu xibaar yi nga jël ku mel ni Maimouna Ndour mu war a toog ci teleem di tas di indil Sénégal ay xibaar yu baax déedéet ndeke booba moom it fekk nañ ko ci scandale bu mag a mag bu vingt neuf bu Mame Mbaye Niang bii ndeke a nduur mi ngi ci biir moom it fokkati na fa wàllam moom it nag dinaa leen wax leneen moom it beneen ingénieur u télévision beneen nit buy liggéey ci télé moo ma ne mu ne ma Tunkara télé a nduur bi li ko ubbi Mame Mbaye Niang def na ci trois cent millions mu yónnee ma ay document ma ne ko yow looy wax ni mu ne ma trois cent millions la Maimouna Macky Sall euh, euh, Mame Mbaye Niang jox may a nduur xobbet xobbet xam nga ñun du ñu jiiñaate dama leen ne ñun nee nañu leen toujours lépp lu ñu wax rek am nañ ci firnde gis nga li ma leen di wax ni ci mbirum Ibba Ibba Ibba mu Marème Faye Sall ki nga xam ne moom Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop ki nga xam ne moom mooy xaritam muy Ibba Ibba am na beneen xarit bu nekk CBAO boo xam ne daf ko tuddee doom xam na li may wax bu ko weddee dinañu indi ay tur maanaam li ñu xam ci seen scandale bi dafa jaggi dayoo xam leen ne Sénégal on a des dossiers on a des documents sénégalais laay waxal li tax Macky Sall ak famille Faye Sall bi ak quelques bandes yi ngeen di gis ñuy wër ci dëkk bi mooy gis nga euh, promoteur làmb boobu ma leen wax moom lu ci bari moom moo leen di fournir ay nervi parce que promoteur lamb la ñan ñooy nervi ay mbër lañu te moom promoteur lamb la lu bare bare bare ministre yi moom la ñuy woo jokkoo ak moom mu jox leen ay nervi parce que li mu sàcc ci alalu Sénégal ëpp na deux cent milliards dégg yéen na ngi dégg li may wax deux cent milliards mais yéen déggu leen ma de waxuma leen dix milliards waxuma leen vingt milliards mais deux cent milliards gars yi bato la ñuy jël di wër dëkk bi di noos wala ñu jël jet privé dem Dubaï wala dem feneen ci beneen dëkk dem noosi fa Amérique mënatu fi ñëwaa ah. fii moom Amérique dootu fi jaar fii am na lu mu fi def lu mu fi lu mu fi njuuñ njaaj fii mënatu fee jaar waaye loolu dossier la bu spécial keroog bu ma ñëwee wàcceel leen dossier boobu damay pare rek ñu dem jëli ko këram Sénégal dugal ko ci biir kaso dossier boobu moom bis bu ma ko travaillé bu ma paree rek daanaka lu bari ci suñu problème ci problème mu nervi yi dina faju parce que dossier boobu bis bu génnee waa ji damay pare ci dossier bi rek ñu dem jëli ko ci këram saisir bien mi yëpp parce que ay faux documents yi mu yóbbu ci banque ba ñoo nga faa les faux documents qu'il a qu'il a fabriqués en collaboration avec des grands délinquants dans les banques du Sénégal documents yaa ngi foofu te yeneen banques yi aussi yéen may dégg les autres banques du Sénégal qui ont des scandales comme contacter Tunkara il faut me contacter à la 3 au, au 001 vingt 514 24 70 contacter leen loolu dama ko bëggoon junj pour wax leen ñun suñu justice bi ni mu jubadee ak Macky Sall ni mu yàqee réew mi ànd ko nag ak ay promoteur de lamb ak ay sàcc ak ay fenkat ak ay petit commerçant ñuy yàq suñu réew mi donc gars loolu dama leen ko junj rek li ma leen wax nii mi ngi toj Sénégal mi ngi lëmbe banque Sénégal yi moo tax kenn ñemeetul dugal xaalisam ci banque senegal tey kenn ñemeetul dugal xaalisam ci banque parce que banque yi fi mu toll nii dafa am problème parce que gars yaa ngi dem leb mais ay kayit yu tappale la ñuy dugal ci biir banque bi ànd ko ak ay liggéeykatu kat ci biir banque bi te ñooñu yëpp ay xaritu Macky sal lañ Banque de Dakar BDK njaaxum bi fa am tojaange bi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir loolu tamit pour beneen jour la ndax Aliou Sall nee nañu leen moom mooy moom moom moom BDK maanaam ñi ko moom moom moo ci ëpp doole Banque de Dakar employé yi ko doon liggéeyal euh, euh, maanaam euh, bi mu nekkee caisse des dépôts et de consignation ak ay secrétaire ak ñi ko doon liggéeyal ci yeneen services yi ñooñu yëpp la jël yóbbu leen banque de Dakar quatre-vingt-dix pour cent de ces gens n'ont ont zéro expérience de banquier imaginel nga jël ay nit yóbbu leen ci biir banque te amuñu expérience su banque imaginel nga jël ay nit nga yóbbu leen ci justice am na ci benn juge ba nga xam ne Siré quelque chose Siré Maxtaar tour bi dina ñëw parce que il faut ma tegal leen vidéo bi il faut ma taxaw tegal leen vidéo bi ngeen dégg ko am na kenn koo xam ne ci magistrat Macky Sall yi pour nga xam ne def defkatu ñaawteef moom dafa nekk ci famille rek baayam moo atte woon Ablaye Wade ci affaire maître baaba Sèye am na kenn ci juge yi nga xam ne magistrat yu bees yi Macky jël dinaa leen ko ñëw tegal léegi ngeen dégg léegi ñun naka la ñuy amee justice boo xam ne bàyyiwuñu ko mu def liggéeyam justice su Sénégal coup de fille la juge ban juge moo ko jàpp juge nangam ñu jël juge bi allo juge Diallo way ça va waaw juge juge waaw <laughs> waaw on va dîner d'accord juge Diallo dem dîner ak moom ñu indil juge jallo mallette boo xam ne deux cent millions mooy nekk ci biir deux cent millions mooy nekk ci biir déggu leen ma de nga dem gisi juge nga jox ko male deux cent millions nuyu juge waay waay sama xarit la waay Ablaye waay c'est mon ami waay waay bi ne d'accord ñu jox juge bi dossier bi bi banque la ak Ablaye juge bi xool dossier bi waaw non jox na la kayit ah juge bi xam na ne kayit yi ay kayitu tàppale la juge yi xam na ne kayit yi dañ ko falsifié juge bi xam na na lépp lu nekk ci dossier boobu mu yor njuuj njaali la mu bàyyi Abdoulaye mu ñibbi këram gratuitement pendant ce temps Baara mi ngi ci biir kaso bi Baara lañ lañ ko jàppee tux yamba benn juin wu yamba la yoroon ñu def ko ci biir kaso bi attewuñu ko ñetti at mi ngi toog ci biir kaso bi ki sàcc cent génn na dem këram nee naa leen déggu leen ma def benn promoteuru làmb la ma ngay dawal ay oto trois cent millions lay dawal ci Sénégal kër gi mu dëkk ëpp na milliard ay milliards boobu dinaa leen indil ay dossier bu ma leen ko indilee yéen ñëpp di ngeen génn daw bàyyi Sénégal parce que di ngeen xam ne Sénégal bu ñu yàlla dimbaliwul ci ci partagé ko lañuy mujj daggate ko moo tax man su ma déggee ay nit di bañ ku mel ni Ousmane Sonko est-ce que xam ngeen ne Sénégal cat bi gën a mag ci suñu cat yi sàcc la Le crime le plus commun au Sénégal c'est voler Ousmane Sonko rek mooy politicien ci histoire u Sénégal bu musul vole un franc c'est pourquoi cette machine judiciaire est créée pour Ousmane Sonko il y a des lois à l'Assemblée nationale du Sénégal qui ont été créées pour Ousmane Sonko il y a chaque jour ci côté exécutif bi muy côté Macky Sall les ministres ces généraux am na ay général ama ah. y a des généraux qui ont été créés pour Ousmane Sonko Ousmane Sonko Macky Sall est prêt à tout pour bu mu nekk candidat en deux mille vingt quatre te rek la ko mooy ñaawteef yi ñu def ci réew mi bari na bari boo xam ne bis bu saytukat ñëwee dans dix minutes gis nga Ousmane Sonko bu defee dix mois déggu leen ma de bu defee dix dix semaines à la tête du pays Sénégal à la tête du pays est-ce que xam nga ñaata xaalis mooy génn ñëw tegu ci kaw table yi dina mat dix mille milliards dans dans dans dix semaines déglu leen ma fukki semaine Ousmane Sonko bu ko defee ci réewu senegal dix semaine fukki semaine rek mbay ko Ousmane Sonko ci bopp réewu Sénégal xam nga ñaata xaalis mooy génn tegu ci kaw table bi dina mat dix mille milliards chaque semaine Ousmane Sonko dina yëkkati mille milliards teg ko ci kaw bi tout simplement parce que sàcc bi mooy dakk soxlawul mu toj dara soxlawul mu tabax dara Sénégal boo arrêté sàcc bi rek réew mi changé quand tu arrêtes les voleurs tu arrêtes les délinquants tu arrêtes les le pays change automatiquement loolu moo am Sénégal mes frères et sœurs on a un grand problème à trois niveaux de notre démo démocratie. Trois niveaux. Au côté exécutif, yàqu na côté exécutif suñu réew yàqu na au côté législatif Macky Sall nous a pris un délinquant Amadou Man Diop il faut pas que je l'appelle un délinquant ndax wax dëgg yàlla xamaluma ko délinquant ak sàcc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 gars yi bañ day tàmbali ci suuf mënuñoo toog bàyyi Amadou Man Diop mu nekk assemblée nationale ñu bàyyi juge yu tàppalekat yi Macky Sall jëg mu teg leen ñu ne dañuy xaar bañu ñu atte Ousmane Sonko non non non on n'a qu'à les aujourd'hui